salaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatuhu maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen baalu ak ci weeru koor gi di ñaan yàlla yàlla nañ ci dugg bismillahi rahmaan rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin yàlla kàttu nun ñu mën ko jaamu nun ko bëgg te mu nangu ñu ko incha allahu rabbi aywa yàlla nag ñun ay jaam dong lañu yàlla moo ne maa xalaqtu jinne wala insaan illaa ya'buduun kon nag mënuñu dul rek jaamu yàlla topp ko Cheikh bee ci cuun mënuñ ci wax dara ndax jullit day maandu ci anam bu ne wootumaa nag weeru kooru yàlla kon nañ ci maandu bu baax a baax a baax man bu ma doon man maay internet yi man maay sénégalais may waa àdduna dama ci maandu bu baax a baax a baax te bàyyi ko ak yàlla inna allah xafuru rahim ñaan yàlla atte ko ci yërmandeem loolu lañu ko mënal loolu lañu mënal bëpp jullit yàlla mooy buur mooy atte te mën na ko atte ci yërmandeem ñu koy ñaan rek yàlla na ko atte ci yërmandeem ngeen baal ma àq